ñoo ngi fii buntu impôt et domaine ak le nouveau DG Waly Diouf Bodian mais Waly félicitations. merci merci wax ci sénégalais yi nga xam ne bi ñu déggee sa nomination ñoom ñëpp dañoo kontaan. bon euh, kontaan euh, je pense que ce serait trop dur mais lii sas la rek c'est une mission euh, loo xam ne dañ ko war a def la. day ëpp mais dañu war rek ñaan yaakaar mooy Waly Diouf Bodian ginnaaw bi ñu ko nommé directeur général bu Port autonome de Dakar tey mu ñëwoon fii ci impôt et domaine macha allah euh, di saafonte ak collègues yi ginnaaw bi ñu ko nommé directeur général bu Port autonome de Dakar tey mu ñëwoon fii ci impôt et domaine doon saafonte ak ay collègues am loolu dafay wone ne liggéey bu rafet bi mu fi def euh, rëccuwu ko macha allah docteur ñëpp a Sénégal bi yëpp ñu koy félicité merci Waly merci beaucoup